arbitre sifflé na combat baa ngi noonu Général Malika Kady Sadam Général Malika da koo daanoon fee sa Joal ñu dem fee sa sari Kady Sadam dara daan ko kon combat bi kon combat de clarification la fii si arène nationale lañ ko war a leeralee Général Malika moo wane ginnaaw noonu Kady Sadam nañ jàkkaar lool Général Malika Kady Sadam ah di leen fàttali la 10 ñu ngi ñëw fii ci Fallou Ndiaye mu teg mise am solo ñeenti million la fi teg waaye Général Malika jàpp na ah kaari salam Général Malika waaye Fallou Ndiaye def am solo jël Yaxya Diop yi ni ko sar ne ma koy sargal huit ans de reen yi nga xam ne moom la def oh Général Malika jàpp na plaqué na ko ma koy plaqué oh Kaari Salam war na ko domba Kaari Salam war na ko domba Kaari Salam war na ko domba Kaali Sara war na ko ndombo Kaali Sara war Malika Kaali Sara war na ko ndombo Général li muy def nii wóorul de ah, na Kaali Sara baya ah Général na ko laay laay la laa ña ngay laay laa ngay la laa xale yi bëre nañ xale yi bëre nañ amateur yi kontaan nañ ko Kaali Sara jàppante ba bal na ko Général bal na ko takk na ko tàgg na ko général bi na ko daan na ko général daan na doolo waaw doole doole doxul jàmm doole doxul jàmm général Malika daan na kaari saram waaw général daan na ko kaari saram du ma général naxanteeg moom ba ture ba jàkkaarloo ak moom daanu koy daan gis jël bu ko jël bu boobu waaw waaw bébé guy gi ak Babacar ñu ngi ci poids léger bi Bébé ak Babacar ñoom ñaar ña ngay leetoo leetoo gu diig Bébé Gouy Gui arbitre bi arrêté na na leen bëre leen gaaw jóge fi arbitre bi arrêté na combat bi baax a baax kan moo génn noonu waaw mu ngi noonu di ñëw mooy bébé guy gi nekk ak Modou Fadam moom bi mooy deuxième combat am poids léger yi waaw mu ngi deuxième ñaari xale ñaari ndanaan may nuyu suma mbokku chrétien yi ndax euh, ñëpp benn bébé guy gi mooy ko wax ñaari franc yi franc un franc deux franc deux mi Casamance maa nuyu bu baax a di ko ziar di ko leen wax ñoom ñëpp waaye arbitre bi waat na ñaari xale yaa ngi ci digg géew gi Babacar ñaari xale yaa ngi ci digg géew gi ah Bébé Gouy Gui waxu ko jàpp na loosu mu ngi koy gësam waaye Babacar may ko dara ñaari xale yi jàppante nañ Bébé Gouy ak Babacar Bébé Gouy Gui lañ jàkkaarlool noonu Babacar moo wane ginnaaw Bébé Gouy Gui ak Babacar Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui ak babakar ña ngay ña ngay damante baaraam Bébé Gouy Gui Babacar Babacar ña ngay damante baaraam ña waa ñoom ñaar Bébé Gouy Gui ak Babacar ñu ngi nuyu jàppante nañu ba ah, Bébé Gouy Gui jël tànk bi ba ah, ba sànni ko jabanda nañ ma nga yaa jaw kay cabaxal mu wene Babacar Ngor cabaxal mu bañ lay laxay lala ay naanaanu bërekat lan Babacar waaw war na ko ndombo lay laxay lala ñoo mën lay laxay lala lii SBT bi jaa moo ko ñaari angle yëpp mu ngi leen koy jëlal waaw waaw wër ndomba ba léegi ah penalty la à la quatre-vingt-treizième minute laa ilaaha illallah loolu alaaji mas neen borom mooma dokoy penalty pe laa ilaaha illallah oh laa ilaaha illallah waaye général Malika ngay seet noonu ma ngay def ay débat déedam gis nga li ngeen def li nga xam ne moom la def fee sa terrain gaal gi mise ba nga xam ne moom la ja jag si tegoon moom la jël foofu sa gaal gi tey mu ñëwoon na nationale waaye Babacar bu ngi si digg géew gi ba léegi moom bébé guy gi waaw yàgg na yàgg ah waaw yàgg na ah penalty bi de war naa dugg moom mais ba léegi daa benn góol bi day bañ a tuddee daa dëgër bopp ah damay ragal mu nekk te sëgët de Bébé Gouy Gui jël na tànk ba jël na tànk ba Bébé Gouy Gui jël na tànk Babacar bañ na Babacar bañ na xale yow lamb xale Wally Seck nee na musique xale waaye lamb xale waaw mais penalty ba muy mas mujj naa jug de mujj naa doon coup franc penalty ba penalty ba mujj naa doon coup franc xale yee mën a bëre waaw yi mu ngi koy jéem a buddi mu bañ mu ngay jël tàng ba mu ngay teex laay laaxee la laa dan oh, sukkur ba nag penalty waat de amaat na ko waaye jugaan na taxaw général Malika ngi def ay débat déedam nee du may gaay dara laay laaxee la laa buddi na ko mu ngay buddi mu bañ laa ilaaha illallah ah ba léegi ñoo nga sa suuf de moytu la toog moytu la toog yéen war ndombo daa bëgg a génn géew gi stratégie génn nañ géew bi arbitre bi waat na leen arbitre bi woote waat na waaye mbay guy gi bébé guy gi arbitre sifflé na combat bi bébé guy gi ak Babacar arbitre sifflé waat na combat bi bébé guy gi ak Babacar bébé guy gi ak Babacar bébé guy gi ak Babacar bébé guy gi ak Babacar ñaari xale yaa ngi ci digg géew gi waaye guy gi dafa am penalty léegi rëcc ko tànk boo ko jëlee da ngay xaw a reculer tuuti guitare borom mu toog boo ko internet yi waaw waaw ñu xool benn wet gi préparation yi ñaari xale yaa ngi noonu guy gi caxabal nañ ko mu bañ o oh, xale yaa lamb xale koy def. waaw dama day jël avertissement parce que moo ko tey génn saako yi waaye Mbayang Loum ak Momo Ngom ñu ngi def ambiance bu doy waar si ginnaaw xam naa après si kanam tuuti SBT Média dina leen ko indil bu waaw bu taa bi jeexee bébé guy gi day ñàkk na ñaari avertissement bébé guy gi ndeysaan idi am na combat bu nekk si biir géew gi idi ay idi ay non Moustapha Sène ngeen seen noonu général Malika gi nee di doxandu waaye mbéy guy gi ak Babacar ak fay beneen lu doy waar waaw Belende ngeen seen noonu muy dem cey Belende lay laa cabaxal na ko ba cabaxal cabaxal na daay la la yee mën a bëre bëreel bëreel bëreel at ko bëreel ah bébé guy gi bébé guy gi ak Babacar bébé guy gi ak Babacar oh war nañ ko ndomba war nañ ndomba bébé guy gi Babacar penalty la penalty la bébé guy gi ak Babacar Babacar war na ko ndomba Babacar war na ko ndomba bébé guy gi ak Babacar waaye bi sifflé na combat bi nga gis si wet gi nii Bébé Gouy Gui ak Babacar ba léegi Babacar mi ngi woon lomb Bébé Gouy Gui idi waaye am na loolu combat bu nekkaat si wet gi noonu waaw vite fait bien fait waaw daan na ko oh Layla. la ilaha illallah xale yu bëri lañ waaye El Hadj Mass daa mel ne général Malika tey daa daa bi nekk teg ko si quatre bi si millions yi de ba léegi mi ngi def ay débat déew yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar Omar oh. waaye bébé Gouye Gui noonu. nga suma sama xel bu demee si Doudou Sané sama xel dem si Omar Sané waaw arbitre waat na tas na arbitre li muy def nii avertissement pour kon pour bébé guy gi mais guy gi ragal naa nag bu arbitre fi combat bi day ñàkk de ndax am na trois investissement waaye du yoon du bi jeexul te da ngaa war ndomba bi jeexul temps waaw arbitre bi arbitre bi jox na xamante ne waaye muroon ndambe ngeen seet noonu cey muroon ndambe moytu gaay may nees la moytu gaay laal ci may nees boo demee war bi benn ndambe bi benn bu nag mbuur la bi benn ndambe bu weexul wala bu xonk ndambe bu weex la wala bu xonk. laay laay la la. mburoog ndambe lépp da lay songu. Babacar xoolal ma mburoog ndambe la muy bëre xoolal ma mburoog ba mooy bulu bulali. waaw. cey mburoog ndambe. moo dem protège. laay la xëy la Mburok Ndambe daanu na. Mburok Ndambe daanu na. Mburok Ndambe daanu na fair play yeegu noonu. ndam li génnul réew mi. ana combat si wet ga de. am na combat bi si wet gi noonu. Ibou Senghor lañ jàkkaarloo wala moom moo woon ginnaaw. Ibou Senghor moo wane kanam. Ibou gan la si bi. waaw gan la la laa baa ko ganale. ah waaye ge combat si wet gi moom yàgg na de ñaari xale yee. Oh, gan dë gan plaqué na ko gan plaqué na ko daan na ko daan na na ko. Ibou Senghor daan ñaari xaala nañoo tolloo doole laa ilaaha illallaah ñaari xaala lañ dañoo tolloo doole ñaari xaala lañ dañoo tolloo doole arbitre bi jeex na combat ba jeex na Babacar doxalal ñu dem Babacar doxalal ñu dem kaw gu rëy mu ci digg gi waaw Kaw Gourdin ata booy bi nag Palmarin la dëkk li ñëw bariwut waaye nee na leer ne ah Kaw bu yaakaar ne da koy def na ko defoon keroog Kaw day juum ak keroog mu ñoom ñaar jot dese woon ci deuxième tour yi kot fii la ko def def këf loxo bi ñoom ñaar jot dese waat naa leen waa déggal ma Mbaye ak la muy wax Babacar déggal ma Mbaye ak la muy wax Babacar doxalal ñu dem. waaw Mbaye ak la muy wax am na solo ambiance bu doy waar la fi indi tey moom moom waaye kaw gu ne jël na tànk ba jàpp na ngeen bu booy ba nga koy jëba taw bañ na booy ba takk na ko ay kay jaway la xëy la la cee kaw gur ne. la kaw yaakaar ne la mu amoon dina ko amaat tey booy dañ ko dañ kaa nandu woon moo tax mu rëcc finalu booy bàyyi nañ ko xel moo tax. Issa du rëccaat nga yaakaar. tëkk na ko booy bi booy bi bañ na. nga yaakaar du final waat tey. ah final waat da la de ndax kaw mu ngi si tournoi. waaw ñu war ci tournoi di compétir. waaw gis nga compétition mu ngi wéy mu fexe war doom ba booy bi. waaw booy bi. nga fexe war doom ba la ko bëgg. loxo ba sa loos ba loxo ba ko bëggoon la. daan na ko jël ba rëy na. kaw guddee daan na ko jël bu rëy. kaw guddee daan bu rëy. Kaaw Gourdin daan na ko jël bu rëy ak gaan gaan ñu gën ko xam si gaan ñu waa ko xam si émission tas yaakaar ak ngaan tas yaakaar ak ngaan tas yaakaar moo woon a ginnaaw ngemboo ngembul am morso bu zone bi ngaan waa gis nga final bi nga xam ne moom la fi bëre fii mook franc kookoy tas yaakaar moo sëgg tas ci kanam lay leer. loolu ci dina leer. tas yaakaar ak ngaan. waaye le 10 tey Fallou fi. Fallou la. waaw waaw. waa dem def na si am solo mi sargal Yaxya Jóob Yékini huit ans de ñi nga xam ne moom la def si arène bi waaye combat bee ngi noonu ngaan ak ak ngaan ak tas yaakaar waa li nekk si wet gi sunu càmmoñ waaye gaan ngaan ak ki nga xamante ne nii mooy tas yaakaar ah ah xamante nañ ñoo bokk ginnaaw raay ngaan moo nge moo nge bu bi ruus balaa bi tas yaakaar moo nge moo nge bu am morceau bu zone bi mu ngi ni tekki di laay laay la tas yaakaar a ngaan ah jàppante ah ngat plaqué na ko ngat plaqué na ko ngat taas na tas yaakaar ngat taas na tas yaakaar ngat tas na yaakaar ngat tas na yaakaar ngat tas na yaakaar ngat daa mel ni tey tas yaakaar tey moom lañ tas yaakaaram de ngat tas na yaakaar waa dee gi di romb beleen dee beleen nga seen Libidor lañ gis noonu moo nekk sunu càmmoñ Libidor laa laa la laa tas yaakaar lamba ngi nii takkusaan du jeex di courage ak félicitation fi am da ngay yokk entraînement rek àndaat ak say mbokk gis nañ barki demoo Ndiaye nga fi final yaa ko démérité woo lamb nii ne tey nga daj suba doo daj oh gaay Libidor bu Kayar nga gis noonu ci wet ga Libidor Libidor bu Kayar Libidor bu Kayar ah Libidor bu Kayar arbitre bi jox na Libidor victoire arbitre bi jox na Libidor victoire victoire arbitre jox na Libidor victoire victoire ah. général Malika lañ seet noonu arbitre baa ngi koy xooloo ni wala déedul mi ngi war a jàkkaarloo xale yi nga xamante ni moo di Cheikh Diagne général Malika Cheikh Diagne waaye gis nañ wet gi nii kaw gu moo taxaw noonu waaw waaw ka a ah, arbitre sifflé le combat bi général bu Malika Cheikh Diagne général lool Cheikh Diagne moo war a ginnaaw général Malika Cheikh Diagne général Malika Cheikh Diagne général Malika Cheikh Diagne ña ngay dégloon de général Malika Cheikh Diagne général kor na ko léegi Cheikh Diagne bañ ah Cheikh Diagne kor na ko jàpp na ko laay laay la la général mot na ko général mot na na ko général général mot na ko général dafa tiram mëninam général dafa tiram mëninam mot na Cheikh Diagne waaye Kaw Gourdin nak noonu Kaw Gourdin Kaw Gourdin lañ gis noonu Kaw Gourdin Kaw Gourdin Kaw Gourdin lañ ak Daaw. Daaw mu ngi jóge fee xam ne mooy Luusa Seen. ah Ka ah, Daaw. Daaw ak Kaw Gourdin. waa tey daa mel ne ay mbot la indi. daa mel ne wet gi lay bañ ko daal moom. wet gee tàgg waaye Kaw Gourdin ak Daour Kaw Gourdin ñu ngi si lese ba ngoog Kaw Gourdin ak Daour Kaw Gourdin ak Daour ah Daour doon na ko song moom Kaw Gourdin bal na ko bàyyi na ko jël na ko da ngay bëre Kaw Gourdin dàq bëgg na ko takk laay laay la laa oh dóor na ko tàng moom Kaw Gourdin ak Daawur Kaw Gourdin ak Daawur cey combat bi Kaw Gourdin lum nar Kaw Gourdin lum nar waaye ah, daan na ko daan na ko Kaw Gourdin daan na ko Kaw Gourdin ne ko jugal ñibbi Kaw Gourdin ne ko ñibbil Kaw Gourdin ne ko ñibbil daa guddi Kaw Gourdin dee ko ni jibil daa guddi. Bam Maron ak Zamala. Bam Maron ak Zamala. Zamala lañ jàkkaarloo Bam Maron. waaw Zambala moo daan Gana Ndiaye moo ibbi Ndiaye obali final la ko daan cey Zambala premier sortem daa jël waaye mi ngi jàkkaarloo ki nga xam waaw Franc Franc na bëre soo dem daa jël ci élite simple bi tey war na fi Franc na jëlee fekk ki nga xam ne mooy de tey kuy jël si kanam tuuti dina leer Franc mu ngi fi ku ne mos na laa ilaha ak Pamborone Zambala ak Pamborone Zambala ak Pape Morone Zambala na benn poids léger bu nekk sunu ndeyjoor ñu ngi bëre bu bëre bu doy nag Zambala ay Zambala doo ko fa ko fil ko laa laa la laa kat appi na daan ak

waaye Franc ci digg géew gi di jaay rek gis nañ barki Demba fii Fallou Ndiaye mise bi tegoon moo ko jël waaye Mass Borom ñaari garaw yi daa fàttali gars yi lu am solo su lu ñeneen lu doy waar lu gars yi bàyyi woon xel Franc daa premier sorteem daa mos Général Malika premier sorteem daa mos ah te ñoom ñëpp ak fi daje tey Zambala premier sorteem daa mos te ñoom ñett ñëpp fi daje tey kuy mos kuy mos. kuy mos. si mas dara xam na ko waaye di ko wax cey boy ba xam-xam neexul ba neexul waaye góor ñaari jabar daal da ngay am xam-xam. laay laxay la la waaw salima salibataire rek ba dee bu dul bokk ah Sénégal bés wa kenn ñoom laay laxay la la falaa jaay si biir géew ga Franc ngi noonu waaye beneen ne lañ seen nale muy dox si wet ga nale waaye booy bawal moo wër na Ibou Senghor ma ngi koy wër ci quart de finale yi du yomb quart de du yomb waaye ki nga gis ni jàkkaarloo mooy Libidor la ilaha illallah la ilaha illallah Boy Baol ak lala Libidor ko am takk Franc nga dem Franc ngay ñëw Franc ngay diree ku di ñëw Franc ngi diree ku di ñëw Libidor Franc Libidor ak Franc Libidor Franc Libidor ak Franc waaye Blindé ma ngay jaay delu ci côté ka la la waaw waaw kenn ku ne jege sa tànk sa tànk tibb nga sa tànk morom waaye Libidor moo ngi koy ki nga xam ne mooy sa tëggkat ya tibb na tànku Franc di ko yóbbu si tëggkat ya Libidor Franc ngi si digg géegu di ko xaar ah sotti na ko sa tuus loolay Franc gaawal génn fi damaa war a jël cey la ma ngi nii Franc ak Libidor Franc Libidor Baye Bawol 2 ak Ngane Baye Bawol 2 ak Ngane arbitre ngaan moo daan léegi ki nga xamante ne nii mooy tas yaakaar ak ngaan waaye beneen ngi ni di direeku cey lamba neex bay bawol ak ngaan bay bawol ak ngaan arbitre bi sifflé na combat Boy Bawal ak Ngane Boy Bawal ak Ngane arbitre sifflé na combat bi diggante Franc ak Libidor Franc lañ jàkkaarloo Libidor boo wane ginnaaw jàppante nañ laay laa la laa jagay jàppante Libidor kor na ko laay laa la Franc ak Libidor Franc ak Libidor ña ngay damantay baaraam nañ ña ngay damantay baaraam Franc ngi jéem a jàpp waaye ko xañ boppam Franc ak Libidor premier quart de baa nga Franc Libidor Libidor kor na ko Franc koy jéem a bañ Franc ak Libidor Franc ak Libidor ña ngay damantay baaraam di ngeen Franc ak Libidor Franc ak Libidor ah non non non Belende Belende Belende Belende Belende laa laa la laa Blindé Blindé Blindé maruñu nooju la Blindé daan na ko daan na Blindé daan na Blindé Franc ak Libidor Franc ak arbitre arrêté na nee na bëre leen arbitre nee na bëre leen jóge fi Franc ak Libidor Franc ak Libidor ba léegi Franc ak Libidor Franc Libidor Franc Libidor waaye Boy Baol ngeen gis ne Boy Baol moo wane ginnaaw Boy Baol lañ jàkkaarlool Boy Baol ak Ngane Baye Bawol ak Ngane waaye Franc noonu Franc ak Libidor ay Baye Bawol ngànjël tàgg bi ngànjël tàgg bi Baye Bawol daan na ko la ilaha illallah Baye daan na Ngane Baye daan na Ngane oolo oh, oh, oh. Baye Bawol ak Ngane Baye Bawol ki nga xamante ni Boy Baol fayu na tey làmba ngi te da daj jéeg combat si wet gi Franc ak Libidor la waaw fair play làmba ngi nit ñoo ko moom ndam li génnul réew mi jéggaani ñu ko moom waaye Franc ak Libidor ak ci digg géew gi ba léegi ñu ngi puusante Franc koy jéem a manœuvrer oh! Franc koy jéem a manœuvrer Libidor bañ na Franc koy jéem a manœuvrer Libidor bañ na la la la la ay bëral bëral bëral bëral Libidor bëral Libidor bëral Libidor bëral ah, sifle bay lay boole boole di tàggale arbitre bi sera maître di teere Libidor ak Franc Libidor ak Franc jàppante nañ Libidor ak Franc Libidor ak Franc Libidor ak Franc Libidor ak Franc Libidor arrêté arbitre arrêté na combat bi arbitre bi arrêté na combat nee leen bëri leen gaaw ji bu leen fi guddeel nit ñi arbitre bi yooyu wax ak ñoom gaaw leen bëri jigéen bu leen guddeel nit ñi arbitre arbitre sifflé na combat ba Franc ak Libidor bu Kayar ña ngay ba léewtoo léewtoo bu gaaw Franc ak Libidor Franc ak Libidor Général Malika ak Sambala ñoo nekk na sa wet ga Franc ak Libidor Franc ak Libidor waaye Zara Malika ak Zambala ngeen seen noonu ñu jàkkaarloo laay laay la la ñaar ñoom tase noonu Zara daa dem teere gaal gi ñu dem gaal gi mos mos ay waay kii mos arène nationale Zambala ak Zara Malika waaye Franc ngay seen noonu moog li bi Franc ak Libidor waaye Zambala mi ngi jag waaw booy ba wala ngi noonu moo daar ki nga xamante ne nii mooy Ibi Senghor jël bu nga xamante ne nii moom la ko daan jël bu rëy boobu ala yaa ngi ci biir géew gi diggante mi ngi jàmmaaroo ki nga xamante ne nii mooy Zambala ñoom ñaar ñëpp ku dem mos gaal gi tey ñu ñëw si kuy mos kuy mos ah général jàpp na ko ñu nga wéy dambala ak dambala général ak ngay waaxu de la ilaha illallah général moo ngay waaxu ar bi arrêté na combat bi avertissement franc avertissement waa bëre leen moo ne li ngeen bëre ñoom ñaar ñëpp ku ne am na avertissement Général Malika ak Zambala ña ngay bëre Général Malika ah, ah Franc ak Libidor Franc ak Libidor Franc ak général Malika ak Libidor ah général koy dóor tànk bu bañ général koy dóor tànk bu mooy général ko ko dóor waaye Zambala may ko dara waaye beneen combat baa noonu Franc ak Libidor la la la ah Général Malika Général Malika daa dem gaal gi jël premier sotteem dem gaal jël Zambala premier sotteem mu dem gaal gi jël ñoom ñaar ñu tase fii si arène kuy jël ñoom ñaar kuy jël si kanam tuuti dina leer Franc ak Libidor quart de finale bi yàgg na lool waaye ñaari poids lourd la mënta yomb waaye Libidor ak Franc ñu ngi noonu ña ngay bëre Franc ak Libidor Franc Zara Malika daan na ko Zara Malika daan na Malika daan na ko neen nee na pokol la Malika daan na Malika tey mooy daan ki nga xamante ni moo di Sabala Zara qualifié na demi-finale Général qualifié na demi-finale daan ki nga xam ne mooy Sabala waaye Franc ngi mi doon rek ci digg géew gi ba léegi ñaari poids lourd la fair play a ngi noonu fair moom ndam li génnul réew mi waaye Libido rek Franc combat bi yàgg ñaari poids lourd la arbitre bi arrêté waat na combat bi. Gourdin Kaw Gourdin moo wane ginnaaw noonu gis nga tournoi bi nga xamante ni ñu ngi ko tëgg mu war a bëri tournoi bu rëy boobu ñëw fii nga xam ne di bëri tournoi bi di li bi di ut compétition. waaw commencé jamono baa nga xel mujjee ñëw waaw tournoi bi loow signature bi face à face bi le 10 la fii si arène si le tirage bi di awee mu boole fi ñeenti espoir Kaw Gourdin Yankaaw Albarka Kéré ak Thiatou Daouda Fall Kaw Gourdin lañ waree moo waree ginnaaw nii Libidor a ngi jooy nee na na Libidor a ngi jooy Kaw Gourdin ak Birame Ndiaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye ah Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye waaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye Kaw Gourdin ak Biram Ndiaye waaw Corona ak Birame Ndiaye. Kaw Gourdin ak Lamine Ndiaye. Kaw Gourdin Kaw Gourdin daan na ko. Kaw Gourdin daan na ko nee na ko demal ñibbi. Kaw Gourdin nee na ko daa sedd demal ñibbi. Kaw Fiala waat na une deuxième fois. Kaw Fiala waat une deuxième fois baa ngi doon biir. diggante Bawol 2 ak Franc waaw Franc kii di Franc moo ko mujjee daan Boy Mbour merci Idi du yomb Franc ak Bawol 2 ñu tase woon fee sa Mbour Franc koy daan te ñu ñëwaat fii si arène nationale samedi avril ñoom ñaar premier demi-finale baa Prince moo fi jaar cey Prince Prince moo fi ñëwaat ànd ak moom ñu ngi ànd Prince fii tey si arène nationale Franc ak Baol 2 ñoom ñaar ka cay dem Franc ak Baol 2 ku cay dem ñoom ñaar ku cay dem ku cay dem Franc moo cay dem wala booy dawal Baol 2 cay dem si kanam tuuti dina leer Franc ak Baol 2 arbitre sifflé na combat bi Franc ña ngay leeta Franc ak Baol 2 ña ngay leetoo ay laxa ila la oh! Franc war na ko ndombo ah ñaari xale yu bëri lañ Franc kay mbot bu bañ Franc ak Baol 2 Ah, Franc daan na ko doole doxul jàmm Franc daan na ko Franc qualifié na final Franc qualifié na final Franc qualifié na final Général Malika Kalian Général Malika Kalza Kalfa Général Malika Kalfa Général Malika noonu ci digg géew deuxième demi-finale bi Général Malika moo daan Zambala Kalfa moo daan Belende final ak si final bi di xaar waaye arbitre bi ngi woote finalu simple bi final simple le final lese bi laa laa la la Général Malika ngay ay al Malika ma ngay def ay débat débam mais Kalfa ngi taxaw di ko déglu waaye Kalfa ngi taxaw rek di ko déglu Général Malika ak Kalfa deuxième demi-finale baa ngi noonu Franc ngi toog di leen xaar Kaw dugg si noonu Gaaw Gourdin moo nekk noonu. arbitre sifflé na. am na avertissement waaw. Gaaw Gourdin Kalfa ak Général Malika. Général Malika ak Kalfa. General Malika Kalfa General Malika ak Kalfa Malika ak Kalfa ña nga jàppante Malika ak Kalfa Kalfa dugg jàpp na ko Kalfa song na jàpp na Malika ah Kalfa jàpp Général Malika ak Kalfa ña nga jàppante nañ Général Malika ah Général Malika daan na ko Général Malika daan na ko Général Malika daan na ko Général Malika daan na ko Général Malika daan na Kalfa final ba leer na Franc ak Général Malika la ay waay ji la ñoom ñaar ñëpp ku nekk sa premier sortie da waaye tey kuy jël Franc gi noonu laa ilaaha illallaah Franc yu noonu la jëm Zeror la jëm laa ilaaha illallaah Franc nee na ko Parcelles la jëm Zeror nee na ko Malika la jëm tey jaamu final ba ngoog waaye final final final lees a baag si biir final final lese baa ngi si biir final lese baa ngi si biir final lese nekk noonu si biir Kaw Goundé daal si waat final ñam naa ko nee naa ko bàyyi ko bul feddu Kaw daa xam yoon bi nee na Kaw daa xam yoon bi. présentation premier final ba ngi noonu Ka Gourdin la Ka Gourdin ak Diène Diouf présentation ba waaw du yomb Ka ak Diène Diouf ñu ngi noonu ci présentation bi ah borom ñaari gën a ne xam nañu ñu Kaw Gourdin final la sa baa ngi noonu Kaw Gourdin ak Diène Diouf Diène Diouf ak Kaw Gourdin Kaw Gourdin ak Diène Diouf final la sa bee noonu Kaw Gourdin ak Diène Diouf final la baa ngi noonu Prince tey moo fi indi arbitre sifflé na combat bi Diène Diouf lañ jàkkaarloo noonu Kaw Gourdin moo wane ginnaaw ah Diène Diouf dana songu Diène Diouf dana ko wax Kaw Kaw Gourdin jàppante nañ la ilaha illallah Kaw Gourdin Diène Diouf la ilaha illallah la ilaha Diène Diouf kay mot Diène kay mot la la ilaha illallah Diène Diouf ak Kaw Diène Diouf ak Kaw Gourdin jàppante nañ Diène Diouf ak Kaw Gourdin Diène Diouf ak Kaw Gourdin la la la la ma ngay ko oh ma koy bañ ma koy jéem bañ ma koy jéem bañ jàppante nañ ña nga taxaw Dieng Diouf Kaw Gourdin final lese bee nekk noonu dimanche samedi 3 avril 2021 ah daan Kaw gën Kaw daan na ko Kaw jëlati na ko jël na ko Kaaw jëlati na ko waaye la xay la laa Franc ne ko keroog maa yow ñu ko jëlandoo nañ ko jëlandoo tey waaye dara daal i dina ko si ba laay la xay la laa Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin jëlati ko Kaw Gourdin jël na ko. lay laaxi lan laa. ànd ak ki nga xam ne mooy Boy Malika. Général Malika a ngi noonu di ñëw. Général Malika moo nekk noonu. waaye Franc ngi taxaw di ko xaar. Franc ngi jug di ko xaar. Général Malika a ngi def ay débat débam noonu. gis nga Franc ngi noonu. final poids lourd baa ngi noonu diggante Franc ak Général Malika diggante nee ko defal lu gaaw ñu ngi daje ak Général Malika ñoom ñaare gi noonu Général maleka ak Franc Franc mi ngi jël benn béjjën di sëllëx fi nga xamante ni tànk Général Malika fa tegoon tànk yi waaye Général Malika mi ngi def ay débat débam rek moom Franc ak Général Malika laay laay la Franc ak Général Malika Franc ngi diri benn genre lu mel ni xob Franc ngi diri lu mel ni xob Franc ngi noonu Général Malika ngi taxaw rek di def ay contes ay débat noonu. tey ñu ngi woon fii si arène nationale ànd ki nga xam ne moo di daw na ma nga jëm ma waaye kii dem général bareegul mu ngi continuer def ay débat débat ba léegi yor na benn ma nga joxoñ ma nga joxoñ cey lii doon lii doon ma nga bale ma ngay bale tànk ya la ilaha illallah wantaay na bisub alxamis lañ ko ëw jeyli général Malika wàccaay wi day na waar de général lu ne mu ngi koy génne Franc yi mu taxaw rek di xaar Franc ah 1-0 ah, pour Franc daanoon. waaw Franc da kaa daanoon Mbour. Franc da koo daanoon Mbour. waaw final. tey ñu xam. day fayu. fayu. wala Franc day confirmé. waaw waaw. laa ilaaha illallaah. Franc day confirmé ni ko ni mën. wala Général ma ne ko doon fayu la. Assou ñaare xaritu jëkkëram kenn du yow ki nga xamante moo jàppale jëkkëram moo ko suturaal cey lii at kenn du moom sama tànda jooju asu njaay maa ngi lay nuyu nee na leen tubaab naan moo jàppale jëkkëram moo suturaal jëkkëram cey général Malika ngi noonu Franc ngi noonu finalu poids baa ngi noonu ah finalu poids lourd baa ngi noonu ah. final bi nag finalu poids lourd bi maa koy may kenn lañ koy may kenn kese lañ koy may muy Assou Ndiaye ñaareel xaritu jëkkëram waaye kenn faare aaw buru këram moom mu jiitu si kër gi tegale bu jubee ba jiitu la kenn du yow ah waaye nday jëkkër waaw waaw mu ngi wax ñoom te daal Malika am na avertissement arbitre sifflé na combat bi Général Malika Général Malika lañ jàkkaar lool Franc moo wane ginnaaw laay laay la laa ña ngay léedoo diggante Franc ak Général Malika samedi 3 avril ay ah, la ah, oh la oh Franc doon ko jël bu bañ jàppante nañ jàppante nañ Franc ak Général Malika ñoom ñaar ñëpp seen premier sortie dañoo jël Franc premier sortie dem naa jël fii si arène général Malika premier sottam daa jël fee sa tere gaal gi oh la la la tey kuy jël kuy jël kuy jël si kanam tuuti dina leer léegi mu leer ah Franc koy jéem mot bu bañ Franc jàpp na ngeen koy jéem mot bu bañ général Franc Franc jàpp na général ak Franc Général Malika ak Franc Général Malika ak Franc Général Malika ak Franc Général Malika ak Franc ña ngay leetoo ku nekk nga déglu sa morom may Franc nee na parcelle laa jëm ne ko Malika la jëm cey lii laa ak Franc général Malika ak Franc ñoom ñaar siggi nañ taxaw jonnu laa waaw général Malika ak Franc général Malika ak Franc finalu grand combat baa ngi noonu finalu poids lourd baa ngi noonu waaw Franc jël tànk bi général na Franc jël tànk bi Franc ko général bañ na lay lay la juba ko borom ñaaxaar maa ngi lay nuyu Salif Seye nuyu naa la sëriñ kenn yow Ali Faye lay laxay la la day jeex day jeex day jeex day jeex day jeex day jeex war na ko ndomba Franc war na ko ndomba daan na Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc daay Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ko ndombo Franc war na ko ndombo penalty la Franc am na penalty laay laay la la Franc war na ko ndombo Franc war na ko ndombo Franc war na ko ndombo Franc war na ko ndombo daan na ko daan na ko Franc daan na ko Franc jël na final ba Franc jël na final ba Franc jëlati na ko Franc jëlati na ko Franc jëlati waaye dara dina ba jëriñ ba dee takku sax la lamba ngi nii day da ngay lamb nga daj soo doo daj Franc nee na yàlla rek la Franc nee na mënuma yàlla man Franc nee nu man yàlla la la ilaha illallah Franc ngi ñu ngi leen di jaajëfal den bëgg di leen ziar général Malika ngi noonu si moo ki nga xam ne mooy Boy Maliko mais làmb ngi ni takkusaan du jeex dikrage ak félicitation la suba am na bëgg demoo Ndiaye nga fi jël bi nga xamante ne nii mooy Fallou Ndiaye teg tey nga ñëw final franc dans le final kon démérité woo làmb ngi kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous ba dig daje ba beneen ana bi nga bëgg la do bu ko waaw xam nga mooy drapeau Assane Diallo tey Assane Diallo la doon tey waaye lamb ay mbiram ay dutu lamb seen mbir moo waral lii bu ngeen di seen si nag ñaar ñu ci ci ñaar fu nga da daal góor nag mooy wax si pour ménager si si ana ana ñun amateurs yi la ñu am jox ko jox ko bu jox ko le maire waaw mais félicitations vraiment Amath ñëpp kontaan nañu ngeen ci ngor ak fulla ak ngeen jël victoire waaw bii ngay ñu Amath yi gis nga rek dañ leen woo ngeen di yaa ngi sa kër gi yàlla ko yaa jël laa bu ñu leen ñaan yàlla yeneen tam topp ci waaw Amath ñëpp kontaan na vraiment merci beaucoup

kontaan kontaan kon loolu looy wax bët bi ak looy wax ci bët bi ak ngay bëree seen supporter waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla bu baax a baax si yoon yàlla rek yàlla rek très bien ziar ñëpp ko jaral na la jaral na la jaral na la jaaral naa la ci ñëw. sama xarit na woon daanu jaaral naa la ci ñëw. waaw waaw. allo. ah. allo. allo. allo.